noonu ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen contane bu baax baax di nuyu mbokk internet Lutte Motivation tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy parcelle seet ci kenn koo xamante ni euh, yàgg naa liggéey ci làmb lu rafet euh, di dem jëli yi nga xamante ne mooy mbër yu mag yi di jël mbër yu ndaw yi di def liggéey bu am solo ci li nga xamante ne mooy muy sunu grand muy gàllaay taalibe Bamba moom lañu seet si fas yéene waxtaan ak moom ci lu bëree bëri dama koy bàyyi ak kàddu gi bu ko defee wël waxtaan bi grand mag lay ziar waaw euh, Babacar maa ngi lay fay ah, di nuyu nag képp ku ñuy suivre rek ci site bu mag bi di wax ni àdduna dañ nit ki ci loo nekk boo yokkul da ngaa wàññi te macha allah euh, yaa ngi ci yoonu yokkute yàlla na ko suñu borom yokku tey euh, kon ne nuyoo bi rek di nuyu suñuy waajur ak képp kuy bëggee Galaye taalibe Bamba di wax jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall non lañuy ñaanalé Serigne Mountakha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax limu mu naal pour aduna njariñ rek la. non lañ koy ñaanalé Khalifa général kullu Baye Fall mi nga xamantene liggéey bi leen Serigne Mountakha joxoon ci altiné bi pour lepp lu wër cornice Touba na set ñanga fa. di ñaan nak kep ku fa mënta dem na fa sa ñak dem ndax jëfal suñu borom mom amna tambalé way amul amul way te Serigne Touba kuko lebal loo mënut mu fay la lu la jomm noonu lañ koy ñaanalee Serigne Mbaye Sy Mansour ak bépp kilifa rek di wax ni li ñu bëgg a waxtaanee bu jubee suñu borom la bu dëngee ñun la di kontaan ci yow trop bari na nag ci biir waxtaan bi message yi ma bëgg a lancé yàlla na doon lu Sénégalais yi mën a dégg. ay ci am na solo tey fu ñu la fekk nii fal waaw euh, fii sama kër la fii mooy global textile. sama frère suma xarit Assane Fall moom ko yor fii lu toll ci ay fukk ci ay rakam kooku mu ngi yokk Sénégal euh, barab la boo xamante ne ni barabu liggéeyukaay la barabu Serigne Touba la barabu Sëñ Fall la barabu àdduna la euh, di ci profité waale di nuyu suñu kilifa ibu seeni Thiaw di ko wax masa coono ci appel bi ñu jóge donte coonoy tawféex la Serigne Baara Afia sëñ Jili Abdou Fatah noonu laa leen siyaaree bu baax a baax di wax nii Babacar fi si àdduna toll problème mu Sénégal nekkatul ci fiñ ko teg déedéet du problème mu Macky Sall ni Ousmane Sonko déedéet problème mu retraité la mag ñu war a jëm retraite pour xale yi ñëw ñoo nanguwul dem retraite voilà Babacar bu njëkk da nga daan rombu fu mel ni Médina Fass Gueule Tapée HLM jotaay grand place su mag ñi retraité léegi amatul Babacar dangay jàng ba toll fi nga war a toll sa maam ne ca palace ba nga war a doon amatul ci Sénégal mhm. état Sénégal bu réglé loolu rek réew mi am liggéey kenn ku ci nekk jàng la nga war a jàng mhm. Babacar ku def ci palace quarante ans retraite war na la ndaw mu am deux ans mhm. war naa mën a ñëw wuutu la jëm 50 ans mais tey da ngay nekk ndaw jàng pendant 20 ans jóge ca la ngay jàng amoo yaakaaru liggéey mag ñi toog foofu retraité wuñu état bàyyi leen ca kon problème Sénégal du opposant du parti au pouvoir. dem nañ ba gars yi amatuñu ambition. waa mais parce que jeunesse bi jàng ngir wuutu fa mu nekk ka fa war a jóge retraité wul. ñu yokk fonction Sénégal ñu baal ma demal fu mel ni RTS. da nga fay fekk pa boo xam ne jamonoy sport des seenu ba léegi yaa ngi ko fay gis. mosoo gis directeur RTS bu am 35 ans bi ñu xamee xàmmee ba léegi 40 ans jëm kaw rek.

ñu gis sama compétent an sa doole doole mooy doxal compétence. dëgg la am na solo. kon nañ dimbali xale yi ñu liggéey mag ñi retraité yar ndaw ñi Babacar temps bi ñuy def ci école xale yi nañ ko def ci daara ji mosoo gis professeur bu dee bëgg ay élève am toppee ko ABC déedéet boo faatoo nañ jàngi nan woon ñu jàngi alxuraan rek muy man di yow ndax kenn ku ci nekk tey yaakaar naa ni maa ngi dégg papa yàlla na yokko su ma mënee def ci sama njàngu doomu école inscription cinquante mille chaque mois vingt cinq mille daara ji chaque mois dix mille mënu ma ko jox sëriñu daara bi. am na solo xale yi ñu liggéey. am na solo dinañ euh, bu ñu demee ba si biir dinañ gën a xóot ci lool nan nga gisee làmb ji. waaw làmb mu ngi dox à cinquante pour cent mu ngi tarde à cinquante pour cent. lu waral lool muy cinquante cinquante. waaw li waral loolu nag su ma ko waxee ñenn ñu bari dañ may mere mooy. bu njëkk Babacar samaam da daan nekk mbëllëxe làmb jot mu koj ko ci suñ tele yi di ko seetaan samaam xamul digital day toog ba dimanche muy laajte ban làmb am te làmb da daan am deux mois avant deux mois avant wala trois mois avant ñu daan dégg coow li léegi ñu ne nañ ko def per per vie bañu ma per per vie mais nañ koy jox à l'étranger Sénégal ñuy fexe sponsor yi di jënd combat di ko jox télé yi. écran plat yi bari na ci réew mi lool ci biir kër yi waaye Babacar boo duggee ci kër yi sama rak sa rak sama waa kër sa waa kër du ñu seetaan tele biir réew mi ay télé yeneen i réew la ñuy seetaan parce que léegi li ci biir réew mi joxatul leen li ñu bëgg tele ci poste lii ñuy def nii bu ñu doon toog ba di ko xaar journal 20h bu ñu génnee fii léegi nga monté ko envoyé ma ko avant 14h ma seetaan ko si sama téléphone bi ndax dina tax may seetaan télé ah léegi meuble la ci kër wala décor. bari léegi si YouTube bi lañ nekk affaire yooyu. voilà léegi nag connexion Sénégal doxul à 100 pour cent nga jaay ma per per fii mbër mi tuus 30 minutes ma koy door a am mbër mi bëre ba daan 20 minutes ma koy door a am. parce que connexion Sénégal doxul temps bi nga doon def pour sponsor yi mën a joxe seeni alal ñu mën a am visibilité amatuñ ko. mais gis nañ tamit euh, euh, keroog euh, Bombardier ak ki nga xamante ne mooy tafaatin ñu si bëri xamuñu woon jour ndax jour boobu noonu Bombardier ak Tapha Tine dañuy bëri. ñu si bëri nee nañ lu ah, ñu ko def pay-per-view moo tax ñoom yëguñu lool noonu. waa xam nga combat boobu boo boo bàyyee xel dëgg-dëgg coow li bariwul. ñaari mbëri ay champion lañu. mais yàlla dalay def sampion ba nuppi am lum la xañ. Tafatine Bayrem boo xoolee ci côté Bawol rek la focaliser wu. Bombardier boo xoolee Bayrem côté Mbour rek la focaliser wu Balla Gaye Bayrem daa wër àdduna. kon ñoom ñaar seen ah, décentralisé wu li nga xamante ne mooy seen. voilà maanaam loolu day am xam nga tey ku mel ni Modou boo ko waxee àdduna yëpp ay xaar bésam tey Boy Niang fi mu toll nii ku mu bëreet dañuy xaar bésam ndax dañ naan moo daan Balla Gaye 2 mun na bañ a nekk dayooy Boy Niang mais ki mu daan moo toll noonu jëmaat ci koo xamante ne ni dayoom toll na ni ki mu daan toll kon faaw ñu perte attention ci combat boobu mais Bombardier Tapha Tine la daloon Yaxya Diop Yékini da leen dal Yékini nekk na fi mbër moo xamante ne fukki at kenn daanu ko mais Bayré Yaxya Diop bariwuloon te ba tey mooy meilleur lutteur ci Sénégal kenn dindeegu ko ba léegi parce que 50 ans lañ koy joxe la ñu wax xaw ma 40 ans xaw ma kon ba tey boo xoolee tey ni noonu mu ko téyee daanuwul ba Balla ko njëkk daan Modou Lo Balla Gaye tollu ñoon foofu mais dañoo ubboon làmb ci seen i coow ci seen mbir mu ngi mel ni Sa Thiès Reug Reug bii ni ñu koy coowee Bombardier Tapha Tine communication bi doxul ci internet bi carrément boo xoolee seen open press yi la yi commencé di dem di ñëw kon nañ nangu dogal ni site internet daa bokk ci làmb médiatiser dafa bokk ci làmb mais combat boobu amuloon médiatiser boo xoolee ko tëgg étranger la fi ñi ànd ak moom defuñu communication bu yaatu premier combat am na bëggoon naa mu def benn jeu boo xam parce que gis naa mu yokk loo xamante ne grâce à Luc Nicolaï étincelle yaag décor baag ak façon pëjam boobu mel nañu ku ñu woon MMA kon kooku yokk na làmb kon dañ doon ñaan tey code de popularité am gënoon yok mais nañuy ñaan prochain combat am adversaire yi wala ci combat yi ndaw yi doon yu am ciow ndax muy dégg bop wa ku xép sa bop rek ñu xép la lima la waxon sank la lay waxaat Sénégal sport bi fi mag du football kese du lamb yi kese mais championnat Sénégal Babacar do jël sa caméra bi dem fa di ko filmer wala boko ko Sénégal di ñu ko sétane lamb ji lañ bëgg nga leen koy won lamb ji am clan promoteur yi naan ni ki naan ki yama neex kii yaan kenn ma neex ba promoteur taxaw naan ku dem sama open presse do dugg ci sama làmb Babacar xam nga ñun mën nañu tok fi waxtane Sa ci Reug Reug wala ñu waxtane Bombardier ak combat modlo Lo pourtant ñu ngi def promotion ci combat bobu mais est-ce que jour open presse am nañ temps bi temps ñu def ni diko def promouvoir ci affaire bobu nonu nga ne ko ñewul ci open presse Babacar mi defoon micro territoire nak rayo ko championnat senegal mën ta dox parce que may ñu nit ñi accès pour ñu suivre ko lamb ji ñu dajalo difa dem ñun suñu bir barna ñak fayda babakar nit lu mu ñàkk suñu borom la nit lu mu am suñu borom la bul ñàkk dara mukk ba ne galaay mu ko teg bul am dara mukk ba galaay moo ma ko jox di nga ko sant nag ndax yàlla lu mu ñuy jox dafa am fu mu koy jaarale nañ favoriser ndaw ñi jàppale presse en ligne bi xale yi ci nekk te bëgg ko ñu favoriser leen même boo ci nekkee ñu imposer la ngay dem di def formation wala njàng pour yokkute Babacar xam nga nit jàng na ba këyitam nit ku jàngul ñëw raw ko yàllaay def nit kuy raam kuy naaw mënu koo dab te métier bu jàng di maye du ku jàng rek ci ciy tekki bu ñu làmb ji bëggee woon ginnaaw nañ ko woon ginnaaw xam ne ñoo ko médiatiser barke alxuraan. am na solo tey jii am na yenn combat yoo xamante ni taxawal nañ ko mu doon ay combat yu si diggante ki nga xamante ne mooy Sa Thiès ak Reug Reug coow li bëri na boobu làmb en tant que reporter nan nga ko gisee. dama ne leen man galaay Talibe bàmba day xaw ma kuy daan. waaye su ma amee sama xaalis ba di ko teg ci pour gagner ci Sa Thiès laa koy teg. lu loolu. voilà lu tax lu waral loolu mooy. rëg-rëg ndaanaanu kulli fadrin la ndax papa kanay sa baay rek kon war ku ne war na laa ragal ci dóor rawatina ci bëre Modou kanay sa maam rek war naa tax ñu respecté la ci bëre caarooy laa bokk rek te wone sam bopp war naa tax ñu respecté la ci bëre waaye dama bëgg ñu xam ñaari façon bëre yi la ca duubalees newul ci Sa la ca Balla Gaye newul ci Sa Thiès Salif nag nekk na mbër moo xamante ne ni dafa complet mais Sénégal boo gëjee bëree ak kenn ki di def ay preuve mun nañoo suul sa ndaanaan Sa Thiès ak Reug Reug noonu la demee Sa mu ngi mujjee bëree ci Malick Niang Reug ñëw nekk simple bi di ko toj dem MMA ñëw daan mais Babacar dama bëgg tuuti ñu waxtaanee ñaari combat yi ba ñetti combat yi ci mbër yi Reug Reug champion la. bu mag mais day day dajale komba bëree un deux trois di uti quatre Sa Thiès bërëm dafa gaaw da ngay dellu tuuti ci Sa Thiès Boy Ngaay stade Iba Mar dañoo bëre bëre bu jaxasoo Boy Ngaay xam nga fu mu nekk léegi mënoon a bëre ñu jargandalu ci biir bëre ñu ne Sa daan na ko ñu ne Boy Ngaay ko njëkk daan bëre bu bëre bu diib bu jaxasoo bu jargandalu ci diggante bi Salif màgg na fi mais bi saalif amee neeku réel. nee ko réel bu yi ku ne xam na ko mbër la moo xamante ne loxo yi jot na te day xeex day daw lalli la mbot na Sa Thiès mbot moo xamante ne bu ko Salif mbaarul woon hmm. non kon Salif fa lay bàyyee bëre ndax bu jógee waxuma la yaram buy metti waaye colonne baral mun na koo ñàkk Salif génn ci combat boobu saa bu bëree ñu ne mooy na mais bëreem daa gaaw nga xool Sa booy Boy Niang fukk ga mu doxee ñëw ñàkk ko Sa Thiès Malick Niang fukk ga mu doxee ñëw ñàkk ko mais bi mu amee Moussa Ndoye dafa dal xool ni mu bëreeg Moussa Ndoye bu gaaw ba boo xoolee ni mu bëreeg Elton daan ko jël bu rëy waaye boo xoolee rëg-rëg day dajale Elton benn ñaar benn ñaar benn ñaar Elton a ëppoon Sa Thiès si dayoo nag mais est-ce que bëre bu gaaw bi ci Sa mu ngi ci Elton ba mu lay may nga dajale ko nga jóge ci rëg-rëg ñëw gis ko na mu def giri 1 2 1 2 ba yooru ngembam est-ce que Sa Thiès dina ko may nga ñëw Reug Reug combat am bi ma jàpp ni moo gën a gaaw mooy contre guy gi te foofu doole. waaw mais mais mais Reug Reug bu bu janoo guy gi ak li ñuy wax ñoom ñaar seen melokaan ci làmb Reug Reug bu dajee rek war na dal ci kaw guy gi mu daan. am solo mais ñoom ñoom ñaar seen base combat lan la. waaw euh, xeex dana ci am lu am solo. mais ku ci dëggal xeex bi ñàkk ut buntu lay doon muy rëg-rëg di Sa Thiès. kenn dóor. nga bëgg a fayu kut ko kut. Mhm. mën na laa sàcc daan la jël bu rëy ku ci dóor sa morom it na kuu bi dal ba nga xamante ne ni boo wóoloo sa loxo dama koy faral di wax Babacar góor su xamee loxoom lu muy pesé mhm. bu ma la sa bu sama loxo dalee rek mhm. war naa mën a xam ne yaa ngi fa wala nekkoo fa kon ku ci nga ko mun a songu làmb ja jeex. warna naa ki nga xamanteni moy Reug Reug ba arbitre bi sifflé. lolou lañ ko xamé Salif attaquant la. ndax combat bi non si si. kon war ko deg non mais bo xolé Reug Reug ci bu jëlé jëlee palmarèsam tuuti dem ci mbapat. Mhm. jappanté arranger ko. Mhm. lit avec frappe gisaguma fi ku fi Reug Reug dor dóor yi Sa Thiès dafa dor ness mhm. Sa Thiès da don dor ci Moussa Ndoye. Sa Thiès da don dor ci Boy Niang ñàkk. Sa Thiès da don song ci malik Niang kon bu amé reug reug bëgg ko bayyi ci mbapat donte sa ndanan la waye timit ndananu reug reug ci mbapat do ko may nan dajé ku ci gëna di sa morom bu sa loxo dalé war nga mëna xam sa morom jogé na fi combat mëna gaaw nak reug reug yeen stratégie la mëna tek pour am limu bëgg ci Sa Thiès jox ciir Sa Thiès bu ñëwé na tous and ak caaro yi bu ñëwé na ambiance and ak caaro yi waaye bu démé ba dara des lu ñaar nit ñet nit ngay andal jëm ci gëw bi na bayyi caaro yi caaro yi bañ leen bayyi ci biir stade jéem a yëngal ci suuf waa Caaroy gësam bu ñibbee waaye nii mu gisee ci face à yi muy dox di ñëw amaana it c'est normal parce que jaay combat la waaye fugu boobu bu ko doxee mën naa am lu ko bet poids bi rëg-rëg yor. waa seen face bi mujj bi ma gis man xaw naa cee gis sama bopp parce que rëg léegi international la bi mu indi woon Sarano bu njëkk ba moo ma gënal bii mu mujjee andi. bëri nee nañ euh, poids bi est-ce que dina ko arranger parce que mooy waaw. jamono boobu ak léegi soreetul contact nag mun naa tas mbër nu ne na defe naa ni boo xoolee rëg-rëg boobu ba léegi boo gisee danga koy gis mu solo lu ample wala ci entraînement am nga koy fekk contact nag mun naa changer poids te combat bi comme yàggatul dimanche bii di ñëw bis topp la yaakaar naa ni mënatoo te fee wàññi poids bu yéem ñëpp mënatoo fee yokk poids bu yéem ñëpp mais est-ce que tey Babacar ni ma toll nii ma nekk 85 kilos wala 95 wala 70 kilos est-ce que su ma nekkee cent kilos mobilité bi ma amoon dina ko amaat côté boobu nag lay xaw a tiitee ci loolu quoi waaw. ñoom bu ñu xeexee ñoom bu ñu xeexee. waaw euh, xeex bi mën na arranger Salif su bàyyee laaw rëg-rëg su nattee ba loxoom dal mu màmm ci kaw Salif ba loxoom dal laa wax de wax ma mu màmm ñëw ba loxoom dal bu dawee centre Salif ci ndiggam mën naa ko ne xeex bi bu ko kenn favoriser si ñoom ñaar. combat bu yàggee ak avantage ñoom ñaar ñëpp. waaw lu tax ma ne ñoom ñaar ñëpp mooy tey. Mm-hmm. Reug Reug gëj nañ ko gis mu wàcc compétition bi. Mm-hmm. te contact day maye endurance. Mm-hmm. bi muy bëree Gris 2 su ma ko bàyyee xel tuuti. temps bi mu def ci mbapat mi ñëw préparé Gris Bordeaux def ko ci temps bi mu am pour moog Sa Thiès waaw. MMA bi la gënoon a focaliser wu ci li ma mujjee bàyyi xel ci mom Sa Thiès timit ci Moussa Ndoye la jógee donte rëg-rëg moo ko mujjee arène nationale te ñoom ñaar ñëpp ñam nañu arène national té ku ci nekk ndam nga fa génné kon bu né nee national day sul ndaanaan ñom ñaar bok buñ ci waaw. ku ëpp ñoom ñaar kan mo ci ëpp li nga xamante moy mooy ndoxtu bëri. ñëpp ko am suma ma wax ci ndoxtu bëri dama naan 50 50 parce que ku ne wane nga sa preuve te rëg-rëg nekkuloon ci avec Farab bi kessé dafa doon dem ci mbapat yi di dajeek ay champion di leen daan. te ndoxtu bëre mën nañ ko génnee foofu saalifit nag bi mu ñëwee taxawul ni man maay doomu Double Less taxawul ni man may rakku Balla gay rek yem ci daa wone ay preuve ba doon sampion bi mu doon waaw